daal di ko sànni ci li nga xam ne moom mooy téewo te loolu dafay fàtt li nga xam ne moom mooy ndox mi te ñëpp xam ne ne ndox du bàyyi yoonam fu war a jaar lay station yu bari li ko waral moom mooy des fois da ngay gis ndox mi fu war koy fàtt te bi nga xam ne moom mooy li ñuy faral di utiliser des fois ñu bëree bëri ñu ngi koy utiliser euh, mbir mi Euh, mooy li nga wax tout à set dafa war a tàmbalee ci kër yi mhm. te ci kër yi ña fa nekk ñi ñu war a gën a mën a ñu xoolee ndaw ñi fi nekk yor ay drapeau du Sénégal di bàyyi muy flotté loolu benn symbole la benn ñaax la boo xam ne nii tey jii ne bu ñu tàmbalee ci xale def ci ñoom li nga xam moo di civisme ñoom à l'école dañ leen koy jàngal mbuboowee jooju le bu ñu génnee ci mbedd mi bu ñu naanee duñ sànni ci mbedd mi loolu tamit dafay nekk beneen exemple parce que bu dee xale bu ndaw bu am ci poosam ba gis poubelle def ko ci wala mu naan wala mu xoli tàngalam dem ba ci poubelle mu dugal ko fa mag bi nga xam ne daan naan di sànni bu xoolee ci moom dina ci war a mën a sukkandiku liñ naan mag kenn mënu koo jubanti waaye mag gone gu jub mën na jubanti mag ministre yi ak premier ministre dina am yeneen barab yoo xam ne dañ faa dem ngir soññee kon nag tey ji fii ci caaro yi ñoom ñoo aye pour tudd caaro yi itam tudd yenn barab yoo xam ne ni ak mbalit mi ak ndox mi ak waajtaayu itam di doon nawet bi kon euh, je vais vous laisser alors euh, découvrir ces magnifiques images de l'arrivée di président de la République, le président Bassirou Diomaye Diakhar fay ici au niveau de Thiaroye pour la cérémonie de lancement de la journée du nettoiement, une journée qu'on veut pérenne, qui va s'inscrire dans la durée, que ce ne soit pas une affaire alors euh, mornée. C'est ça l'esprit. oui Ibrahima. waaw jërëjëf dañuy jël waa service civique national rapidement euh, lan ngeen fas yéene impliqué aussi bés bi euh, de ak juste. c'est les battants de parachutistes, c'est les militaires, font les militaires. Euh, Oui, allez-y. Euh, donc euh, nous, nous sommes de parachutistes. Oui, allez-y. Euh, je suis commandant ici, donc je suis venu avec euh, les militaires qui sont ici au niveau de la barrière pour participer à cette journée euh, dédiée à, au nettoiement des de, de, de collectivités. Ah, kon da ngeen da ngeen siy dugal seen loxo bu baax. tey ak suba ak gannaaw suba. oui effectivement comme nu ko ñëpp di defee aussi ñun aussi dañuy ñëw dugal si suñu loxo bu baax en fonction des instructions qu'on a reçues de commandement. pour venir voilà tey suba ak ginnaaw suba yëpp voilà jàppale ñëpp comme ni ko président bi waxee ñu jéem a setal réew mi ba mu set wecc quoi. jërëjëf militaires yi dugal si seen loxo civil yi dugal merci jërëjëf kon nag euh, yéen ngi gis président de la république mi ngi nii di jublu si lii ngeen di gis ce sont des images euh, voilà. li Bassirou Diomaye Faye choisir. Euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy les imams les oulémas yi nga xam ne ñoo nekkee ci gox bi ñoom ñëpp ñëw na ki nga xam ne moom mooy son excellence le président Bassirou Diomaye njaxaar Faye teg ko li muy wax moom mooy lii président def kat ñun la ko defal ndax ñu ñoo ko war na def alors bu ko président wootee nag ñoom waruñ ci des ginnaaw moo tax ñoom ñëpp ñëw. ambiance ñu ñu bàyyi ambiance bi en tant que le président di léegi bi du mag la ndaw ñi mu fekk sa fi ay ndaw lañ loolu dañuy mën a euh, boo xam ne bu am solo la boo mën merci merci beaucoup donc ñu bàyyi euh, ambiance bi ak euh, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye vient juste d'arriver fi nga xam ne moom mooy ci caaro yi gis Bassirou avec une casquette aux couleurs du Sénégal avec <laughs> Voilà, le président de la République accueilli par euh, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, cher Tidiane Dieye. Et euh, les membres du gouvernement, tous présents. Et voilà. le président qui est venu avec ses épouses. Et ce sera l'occasion justement d'appeler sans doute les femmes à davantage investir dans le nettoiement, dans la propreté au sein des maisons, mais également dans les ruelles et artères du Sénégal, dans les quartiers, les villes et les villages. Le président qui salue les membres du gouvernement, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, le ministre de l'Éducation des pêches et de l'économie maritime, les responsables de l'administration territoriale, la police nationale, l'Assemblée nationale, les députés, Mme Dialafam et les autres élus. Voilà, en ce... cette journée Et c'est l'occasion justement de Sëñ Khalifa Tëli rek mbir voilà. Ibrahima ñii les véritables acteurs. di nettoiement ñoom la njiitu réew mi di nuyoon di saafonteeg ñoom. la gendarmerie di. la euh, brigade nationale des sapeurs-pompiers. l'armée des autorités euh, religieuses. Je vois mon visage très connu à la RTS. Les religieux et c'est les jeunes du cadre de vie qui, euh, qui disent précis, qui scandent et qui clament justement leur implication. Ah oui, c'est des forts moments de solo nuyu ak sa nos équipes qui sont palais de la République. Voilà le président qui continue de saluer les autorités. le service euh, national d'hygiène Le premier acte qu'il va poser. Le président de la République qui va saluer les populations. absolument ma nga kon xaali mil baa ngoog ma bàyyi la tuuti nga mos ci ambiance bi mënut a ñàkk xam nga lii day doon loo xam ne nii euh, day doon mbiru liggéey waaye itam day doon mbiru saafonte saafonte ak ñi nga xam ne ñoo doon askan wi askan wi nga xam ne nii itam ñoom ñoo am kóolute ci moom ba teg ko fi mu ko teg voilà itam ñu ñëw gis itam di bëgg ak moom ci li nga xam ne itam moom lañ liggéey bi ndax kaa ñu baax dafa neex kaa ñu dafa neex kaa jub dafa neex kaa jubal dafa neex ana ci ñan la naqari rek mooy xanaa ña xam lan ak lu ni mel ñu bàyyi gars yi ambiance bi nga xool ngi noonu ambiance bi euh, elle est là elle ah lii mooy lii réew mi di nuyonte ak di saafonte waaye itam di am ay kàddu yoo xam ne nii kàddu yi ziar la yu dox ci digganteem ak ñi mu fekk ñu doon ñi ko dalal fii tey jii ci Caaroy ñi fàttali ni bés bi moom la ñu jagleel wàllu cet gi bés bi nag dañ ko jagleel tàmbali gi waaye cet gi du yem tey du yem ëllëg du yem gannaaw ëllëg li ñu bëgg mooy ñëpp ku nekk bay ci sawar bu ko defee fii ba nga xamante ni itam moo doon la ñu cay ñu mën ko cee am ndax lañ cay séntu mën ko ci am moo di réew moo xam itam dafay set te tubaab moo naan nettoyer c'est bien mais li gën mooy ne pas surtout salir fexe ba bañ a tilimal mbaa bu tilimal mënta ñàkk itam loo tilimal nga fexe ba tonni ko ba mu set wicc ba kenn itam mën koo gis ci xar kanam boo xam ne itam xar kanam bu rafet la loolu daal mooy li nga xam ne nii moo doon itte njiitu réew mi moo doon bëgg-bëggu réew mi moo doon bëgg-bëggu askan wi te moo doon itam jàmm askan wi ndax ket googu ak li nga xam ne moo taaral googu dafa neex te baax lool ku la woo nag woo na la ci baax loolu nag kaa ñu baax nag dafa neex moo waral tey jii Ibrahima xam naa ne yaa ngeek uh, njiitu réew mi mi ngi uh, wéy di nuyoon tey ñu ngi wéy di ko wan li nga xam ne nii moom moo doon jumtukaay yi ak taxawaay bi nga xam ne itam moom la nit ñi fas yéenee taxaw mu doon taxawaay boo xam ne ba abada lay doon ndax niñ ko waxee ndeem tam mbalit mënuñoo tàggoo ak moom waaye fañ fexe buñ tàggoog set te set nag dafa doon li ñu wala voilà